salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi nuyu naa leen ziar naa wi tey dañuy wi macha allah suñu ndawal baa ngi noonu bagage yaa ngi nii nag waaw kay oignon carotte tomate concombre poivron yu rafet yooyu laaj persil ñu am beurre moom lañuy piqué ak suñu nokkos bu yow bu noppale boobu suñu épices yaa ngi noonu masha xorom ak yi waaw léegi suñu ndawal baa ngi noonu raxas nañ ko bam set dañ koy dagg ci biir noonu daal di ko ñëw piqué léegi bër ñuy jël ak nokkos ak poobar ak laaj ak xorom ak kaani sofia moom lañ koy piqué incha allah léegi nañ def suñu xorom bismillah ñu daal di xorom ndawal li bam kii yam macha allah après ñu dal di ko piqué gis ngeen dag dag yi ma dag ci biir non wa ndax ñu mëna duggal roof bi bu baax wa da ngay am benn morso bo xamni ne bu nu munti toll rek na nekk morso bu ki daal bo xamni da dajalo wa waaw kay léegi nañ ko bër non xorom nañ ko nañ jël bër bër bi lañuy jël ni dal di ko def si ndawale non machallah beurre kii la beurre margarine waaw boo amul margarine mën nga dem ci bitig yi am na ñoo xam dañ koy peese zaar yooyu mm, wala tamit nga jël booru sofia waaw bër bër yi yoo xam ne mën nga ko toggee daal moom ngay jël daal di kiyee sa ndawal pour ndawal li mën a nooy après waaw moo tax ñu koy allah léegi dañuy jël boor bi noonu daal di ko ci kii dugal noonu macha allah <laughs> tooy xep waaw léegi ñu jël roof bi tamit moom tamit dañ ko ci topp noonu waaw ci bën bën yi lañuy jël roof bi roof ko ci ba mu kontaan macha allah roof bi ay épices la am épices yi la am waaw léegi ak pobar ak laaj jaar yooyu ya. lu wara dem ci rof yëpp mu ci macha waaw léegi laaj bi la jël daggate ko moom tamit dañ koy rof ci diggante yi noonu ndawal li ñoree ba nga taseg laaj bi bu beneen affaire lay nekk macha laaj dafa bari façon nañ koy toggee ak bari ak bari macha allah te moom noo ko toggee rek eh, mu daldi mucc ayib daal léegi lii ni beneen astuce la rek. te ngay daggate laaj yi noonu bu la neexee nga roofe ko noonu nu mel noonu raxas ko bam set roof ko ci biir am na solo <laughs> léegi mooy noonu marine nañ suñu ndawal ndawal li marine nañ ko ba pare waaw boo amee ay épices nga yokk ko si sinon man nga yem fii boo amul ay épices ba tey tamit sa mis bi dina neex te ba tey dina am solo incha allah waaw marinade bi classique na kii a yomb na léegi nañ def poobar bi dañu yokk poobar tuuti ci kawam noonu ñu daal def suñu épice épice bi man yi ma am mooy euh, herbe de Provence kirkima euh, kima ak euh, kima herbe de Provence ak lii nii la am jinjar waa léegi herbe de Provence baa noonu mom lañ ci def tuuti mom tamit ñu def suñu ginger poudre bi tuuti bu nekk daal benn kuddu bu ndaw kuddu café bu ndaw waaw ñu def suñu kima def suñu coriandre coriandre en poudre moom lañuy def ak kima macha allah bu nekk daal kuddu bu ndaw ndax dañuy bañ tamit mu dominer gu ndawal li après bo paré do sentir gu ndawal li waaw mu ngi noonu léegi suñu air bi def nañ ko ci moom tamit marine nañ ko léegi teg nañ suñu pool def ci beurre bu ñu desaloon noonu moom lañ ci def noonu macha allah après ñu def ci ndawal li moom la ñuy saafee ndawal li maanaam moom la ñuy commencé saaf ndawal li léegi dañ ñëw daal di saaf ndawal bismillah léegi mu ngi noonu macha allah dañ koy bàyyi fii mu daal def ay affaire am lii astis bi waaw dañ koy wane parce que. pour nga xam ne ñu amul four mën nañ ko def après dinañ ñëw ci assise boo xam ne boo xam ne ñi am fuur tamit mën nañ ko def mais bii comme de majeure partie amuñu fuur zaar yooyu moo tax léegi gis nga mu ngi nii di génne ay jus mu génne jus léegi jus bu mu moom la jël daal di ko sotti waat arrosé waat ko arrosé waat ko da ngay def petit feu gis nga jus bi moom ndawal li après day génne jus ak bër bi ñu kii yiitale waaw moom la ñuy jël daal di ko arrosé waat ci kawam noonu daal di ko tëj boo deful petit fond nag moom mën na lakk ndawal li mën na lakk te du teel a ñor du ñor tamit ñor ñorin bu ñu soxla da ngay def petit feu wàññi sa gaz ba des tuuti nga daal di teg sa ndawal bàyyi noonu mu arrosé dina jël temps moom dina jël temps par rapport ak four bi dina jël temps mais dina ñor. te di nga am miche bi nga gën a bëgg waaw di nga am miche bu mucc ay macha allah léegi mooy noonu ñu pare ñu tëjaat ko léegi dagg naa tomate concombre poivron bu rouge ak bu jaune dagg naa macédoine carotte bi tamit râpé naa ko waaw yi yëpp après naa leen woon fu muy dem incha allah rek waaw léegi ñu jublu suñu togg ba tey waaw léegi suñu nokk suñu soble baa ngi noonu moom lañuy def ci soos bi léegi dañuy def kaani sofia soble laaj oignon waaw ki persil chinois persil façon ñetti persil boo amee naana nga def ci tuuti waaw kaane xeeñ bu ndaw pour mën ko may gu mëna may gu suñu soos bi incha allah léegi dañuy ñëw daal di ko ki mixé noon ñu am suñu soos bu gaaw waaw soble baa ngi noonu mixé nañ ko waaw léegi am nañ soble yu yem dagg yem lañ am te gaaw na macha allah nañ def tuuti dewlin daal di sotti suñu soble bismillah léegi soble si gis nga dagg yi yem na siwruuj yem na te kiiwul tamit bu la neexee na gën a sewal bu la mën na gën a dijj nii mais yomb yomb na te noppale na macha allah sa bët di jooy sa loxo du sonn waaw li nga am soos bu baax macha allah léegi nañ teg suñ soos ñu togg ko moom tamit en attendant suñu monsieur bi ñoraale waaw suñu monsieur baa ngi noonu di def ay affaire am ngi noonu macha allah nañ ko arrosé waat waaw jus bi lañu jël rek delloo si ko gis ngeen suñu ndawale di mu ngi ñor mu ngi génne couleur bu baax te lakkul defu dara waaw lakkul defu dara waaw bu la neexee Eh, sa ndawal lu lu mu rëy rëy da ngay xool lu mu fu mu tolloo rek maanaam bu doon tey ji korite la wala tabaski mu nekk famille bu mag a mag waaw da ngay xool cin bu mag waaw bu doon sax eh, béy bu ndaw la sax wala xar bu ndaw sax mën nga ko nga ko nga def ko comme nii waaw ginaar comme nii genre yi rek danga koy mariner ba mu kii rek daal di eh, daal di ko dugal ci cin rek bàyyi ko mu def ay affaire am da nga jiital bulo rek bàyyi ko mu def ay affaire am bu ko defee après ngay commencé di ko yëngal di ko yëngal di ko arrosé di ko arrosé léegi nañ def suñu nokkos tamit fii si suñu soble si mu gën a saf macha allah waaw nokkos bi xam ngeen nokkos bi moom laa defaroon ba tey te gis nga sakkan na yàgg na dabi bu ko defaree xaw na yàgg mais nag man sama cin moom rëyul loolu la bu dee famille bu mag la moom kii la léegi bii tamit ay poivron la ak ak kii ak carotte moom laa jël noonu daal di ko mariner woon keroog bi ma defaree sama vermicelle bi moom laa wàññi woon noonu xam nga dafa bëri woon ma wàññi woon ko denc ko nii léegi moom laa def nii sama soos moom am na moutarde am na poobar am na diwlin tuuti am na kii waaw ak ak ñaari poivron yi façon ñaari poivron yi ak euh, carotte bu ñu râpé moom laa def noonu dama ko dencoon rek xam nga frigo moom moo tax boo amee daal da ngay denc léegi suñu macédoine bi da war a dem ci soos bi moom lañ def nii macha allah soos royal la ñuy togg de soos royal la ñuy togg macha allah waaw xam nga comme dañuy joxe idée pour koo xam ne bëgg nga def méchoui ci korité bi man nga def eh, ki recette bi te di nga am misu bu mucc ay machallah allah te dina dina rafet te dina présentable machallah allah ñu def ci tamit suñu olive waaw instant bi loo am pour def ko sa sauce bu la neexee nga def mélanger ñaari façon olive olive vert olive noir waaw bu la neexee man nga def loolu yëpp tamit macha allah waaw bu la neexee tamit man nga ci def oignon oignon blanc genre yooyu loolu yëpp tamit dalay day may sa sauce tamit beneen guute tamit da rafetal lool macha allah loolu yëpp mën na dem ci feetu porité wala tabaski wala fet fet boo xam ne bu kii la bu spécial la léegi suñu ndawal baa ngi noonu muy commencé ñor ñu ngi koy arrosé ba léegi doo ko tayalee parce que nag booy togg na waroo génn waañ bi sinon tamit sa togg bi day lakk waaw day lakk ni nga taxaw ci wetam noonu rek garder ko carrément calculer ko bàyyi ko xel mhm. da ci am solo lool macha allah ngay togg di taxaw ci wetu togg bi ba togg bi pare waaw boo dogee waañ moom wax dëgg yàlla moom génn xanaa farata moo la war a génne waaye sinon mën nañ toog ci waañ bi ba suñu togg pare léegi suñ soos baa ngi nii moom ñor na waaw moom ñor na ko ñu ni dañ koy baaral nonu bàyyi ko lu ñu après ñu yàq ko bu ñu bu ñu yàq incha allah na sos bi paré na mais nañ ko defar ben magi arom légui tamit ñu defar ndawal li tamit ben magi arom magi arom bi ma defé soble bi pare jekkaliwu ma ko parce que dama desal tuuti pour après mayonnaise bi foog ñu defar suñu ben mayonnaise royal bu baax waaye fii moom ñu si bi dañuy def suñu sase arôme ba mu mat ba mu mat macha allah léegi daal mu ngi noonu suñu missu wi léegi mu pare am na solo dañ koy arrosé waat arrosé waat ko ba mu ñor jus bi moom da koy neexal en plus dakoy koy nooyal day ñor xom macha allah comme li ma doon wax sànq bu la neexee bu doon famille la tey ngeen am ben eh, ki rek xew man nga def man ngeen de jël seen ben béy bu ndaw wala xar ngeen méchoui ko man na nek léegi suñ soos baa ngi nii léegi togg fi tamit macédoine bu mëna dem suñu mayonnaise léegi mayonnaise baa ngi nii macédoine carotte bi ma ràppe won sank léegi fi ni concombre la ñetti poivron yi ak tomate ma def tuuti eh, oignon fi suñu macédoine bi ñor na mooy bi ma doon togg sànq léegi yi lañuy jaal daal di def bismillah defar suñu mayonnaise royal bu baax a baax a baax a baax macha allah gis nga macédoine bi lañ njëkk a jiital léegi ñu def suñu kii poivron yi tomate bi oño bi ak concombre moom leen dagg noonu fii boo amee maïs du mën nga ko def bu la neexee tamit mën nga fi def ñaari façon olive yépp olive noir olive vert mën nga def euh, carotte bu ñu ràppe moom tamit ñu ko ciy def mu am solo lool machallah allah mayonnaise bi day mucc ay day neex day rafet ah, te day sakkan lool nag day sakkan lool waa boo amee bu dee famille bu mag la moom mën ngeen ko jeexal sinon bu famille bu ndaw la mën ngeen ko mën nga ko denc nii te du def dara léegi ñu def ci huile huile d'olive laa ciy def noonu boo ci boo amul huile d'olive mën nga def huile boo am rek boo am rek jaara ah waaw seef ayda zaar yooyu yëpp diwlin yëpp a baax um, léegi ñu def bi ma desaloon sànq moom laa leen doon wax noonu bii laa desaloon sànq ci soble si moom la def ndisit bi noonu la def suñu mayonnaise léegi suñu ndawal baa ngi ni ñor na gis ngeen bi moom booy ñoddi mu topp la ay waay ëpp na macha allah maa ngi nii mais jël na temps nag jël na temps parce que ba ma ko taalee ba léegi xaw na yàgg mais comme tayalewu ma ko bàyyi naa ci xel bu baax arrosé naa ko ba instant bi jus bi jeex na ba gis nga beurre bi kese kese kese te gis na lakkul lakk yooyu noonu te yàgg na ci fo bi waaye jus bi kese kese kese bër bi kese laa fi dese léegi boor bi kese legi nag muy nii suñu ndawal baa ngi ni parana na waaw def nañ ci salade suñu olive hmm, tomate dité waaw suñu sauce baa ngi noonu nah, mu accompagner ko sauce bi neex na ci nay legi léegi suñu crudité yaa ngi nah. non waaw suñu mayonnaise royal bi ni persila bi yakal nako marem Fall Mariem Fall Casamance Ziguinchor yow laa yàkkal bi mich wi macha waaw Mariem Fall yow laa yàkkal mich wi bi waaw